SCS e moo leen di jox seen sukkaru koor ay promo spécial yu ngeen munta am fenn ak Max Phone mobile Max 20S bu yàññi bi ci 6 virgule 6 pouces ñu la koy jox ak téléphone bu yàññi bi nga xam ne dañ ko ci boole ci 52 000 francs képp yemuñu foofu Max 30 Pro bi moo jël raw gàddu gi écran bi di 6 virgule 55 pouces ak mémoire bu yaatu loolu ci 32 giga RAM bi di 3 giga da ngay connecté ba soxol sedd te batterie bi du wàcc <laughs> rax ci dolli dinañ la joxaale AirPod original ci 59500 saafara dongo ak SCS mboolem téléphone bu ngeen bëgg am na fi ngeen mën ñu fekk Colobane ci centre commercial Touba Colobane 77 830 78 11 SCS Pikine 76 554 23 23 SCS moo leen di ñaanal koorug jàmm ak salaam. dal leen ak jàmm fii ci kafe Touba xéwal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di saaf café di ko wal di ko defar itam di ko jaay ngeen man faa am seen café Touba poudre wala doom li ko doore ci 100 kilos ba ci 50 kilos moo xam ay kilo ngeen soxla wala ay libre mbër yemuñu ngir am nañu matériel sonorisation ba ci kon yéen ñi am xew soxla matériel sonorisation jàppandi na fii ci café Touba xewal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi nekk fii ci Touba Madiane ci mbaar yi gérant ba di Café Baye Fall 76 392 68 57. ah boki, Rawati rawatina jigéen ñi jahle ne jaaxle jeex ak cosmétique wa Cheikh Mustafa andi leen ay yu am solo ci qualité yu original moo xam

sel de douce mané faté wuñu bébé lu soxal bébé bo dikkee fekk ko fi tambalé ci kous ak lu mandi man doon effet de make-up nak fi rek la am ci cosmétique wa keur Cheikh Mouhamadou Moustapha ay pâte dentifrice wayé nak soxna yi amna yo xamné xam kenn du ko wax ci kaw da nga bëgg sa àllaaji bék aha bagage jigen yaangi fi. Amna no ay accessoire téléphone diengu ci walu transfert d'argent bo doxantoo touti fanwéri mètre da nga gis itam suñu assurance wa keur Cheikh Mouhamadou Moustapha gérant bi di mohammed Ñing ñoo ngi fii ci Colobane rue 41 angle 40 ma ne jokkoo leen ak cosmétique waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha El Hadji Aslo ci 77 955 00 00 wala Soxna Jaara Sarr Mambuso ci 76 857 00 26 ak cosmétique waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha daal genn bàjjen jaaxle tut lépp a ngi fi mbokk yi ak wa tapisserie wa keur borom sam di defar ay fauteuil salon ba ci nek di amal oussa salon di defar lal rax ci doli tam di ko di defar bâche rax ci doli tam di ko di defar ay andu, ak ay oussage auto ba ci bloflance ak wa tapisserie wa keur borom sam ñi ñoo ma doy ci liggéey bu baax wër rax ci doli tam garantie te seenub liggéey la ci ëpp nouveau model lay doon di manam model yu mujjé genn ci walu fauteuil salon ak ay xétu oussage yu amul fenn ak wa tapisserie wa keur borom sam ñi ngi nekk fi ci Touba Segede, jano ak hôpitalu Fall gérant bi di Serigne Mbacke Diang. ngeen mën ko jot ci 77 774 57 22. boo ndogoo ba noppi day baax nga digalee lu sedd tamaju suñu meññeefu réew mii lan ko defaree indi na leen daqaar bisaab ak cocktail de fruits am na itam jus de buy dinjeer ak jus d'orange ñamal jus d'avocat bi tàqamtikul waxul 156 boulevard général de Gaulle fille ci centenaire Dakarou. Banga wote ci 77 507 92 54 Tamaju ay jus yu neex vos jus naturels au meilleur goût. alhamdulilahi rabil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salam ala man ursila xudwatan lil alamin xoqal ala sadatin amwati. tabkil aradi alayhim kasamawati. mbokki julli di mbokki talibe ñi ngi leen di nuyu bax di leen ziaré di jital ci nuyo yi ak ci ziaré yi sëriñ Mbacké mi nga xamné mo tok ci jotaay Cheikh Cheikhul Khadim ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko ba mu yeggale naal yi mu fekk yépp ba naal yi bopam tañ ak mom ci barké Cheikhul Khadim di leen nuyu yeen ñi nga xamné yeen ngi ñuy déglu ci sen réseau DTL diffusion triangulaire de lumière radio Jant BFM ci Touba 95.2 di ànd ak Keneram ci dakaar 88 point 6 waaye leer gi FM ci Louga 94 point waaye di nuyu téléspectateur jant bi TV di ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla na ñu may jàmm ñun ñi nga xam ne duñu doyal jàmm ko ñu santaat borom bi subhaanahu wa la ci seen jotaay yi ci weeru tedd wi di weeru shahru ramadan mubarak di ñaan luñ ciy jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu te fulal ñu ko te yàqal ñu ko laqal ñu ko fu yàq eggul ci barke Cheikh Al Khadim muy jataay boo xam ne euh, mi ngi tudd jaar ndagul jàmbaar yi ndagul jàmbaar yi di am ci réseau DTL en direct ci YouTube bi ci jant bi TV ñuy seeti jàmbaar yi Serigne Touba yi di nemmeeku ci ñoom di taataan ci ñoom ay xalaat di ko wasaare ba nit ñi di ci mën a jariñu ndax am njàngale lay doon moo xam ne jamono nit ñi amatuñ temps waaye xam nañ li ñuy jàmbat ci jukko yi moom xam nañ ne bari na lool waaye ñu seet na nag lii rek moo koy mën a saafara mooy seet ñi nga xam ne seen euh, seen yëngu-yëngu yëpp ci liggéeyal yàlla ci liggéeyal jaam ñi ci liggéeyal Serigne Touba rek lañ ko féetale. looloo tax tey ñu jëm seet kenn ci ñoom koo xam ne euh, suñu jàkkaarloog moom rek euh, kenn dutu ko présenté kenn dutu ko présenté ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci xaside yi Serigne Touba yi kenn dutu ko présenté ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci dëkk bi waaye ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci bitim réew di tasaare njàngaleem Serigne Touba kon kooku mooy Serigne Khadim Gueye sëriñ Khadim Gueye moom lañ seet si tey jii ci seen émission ndogul jàmbaar yi ngir fas yéene séq ak moom ay waxtaan wu yaatu woo xam ne dañuy bëgg rek ñëpp jariñu ci ndax euh, bari naa lu may dégg sëriñ Cheikh di wax ne euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo yëkkati njàngum xaside bi ñoom ñoo doon bu doon ay ambassadeur ñooy ambassadeur yi sëriñ Tuubaa kon seen féetewaay seen foofu ñu féete sëriñ bi euh, fu am solo la kon ñu ngi koy ziare bu baax di ko ndokkeel Euh, di ko jaajëfal ci dalal bi nga xam ne dalal ñu ko ci xam nañ ne programme moom bu xat ndax bu yàggul rek xam naa ne ci fan yi la jógee Gambie ci ay tournée yoo xam ne amaloon na ko fa kon dafa mel ne fekk ñu ko ci jot waaye teewul euh, mu recevoir ñu. Euh, réception boo xam ne dal na suñu xel wax dëgg yàlla ñu ngi ko ci sant bu baax muy koo xam ne it suñu diggante moom ak ñun yàgg na lool lool lool wax dëgg yàlla ñu am coloré goo xam ne ba léegi ñu ngi koy sàmm mu ngi ciy bay waaram bu baax a baax kon sëñ Xadim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 di leen dalal jàmm leen tatagal di leen wax ni yegg si ngeen fii ci seen barab ci seen kër mu ngi leen di siyaara bu baax ci weer wu tedd wi di saxru ramadaanal mubaarak di leen ci ndokkeel di leen baalu ak itam di yóbbante nuyoo ak siyaare ci sunu kilifa gu baax googu di Serigne Cheikh Aliou di ko siyaare bu baax di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan sun borom sàmm ko te aar ko ba yéene mii mu am ci liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko defee ni ko bëggee te nu ànd koog moom noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadunil Muntaka sun borom yàggal ko fi lool te wéral ko yàlla na yeggale ay yéeneem yëpp ñu leen di siyaare bu baax di leen ndokkel di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di am mbégte ci ñëw gi ngeen fi ñëw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 لدى الله مكتوب دواما ولا خروا ودوح إبا سيتا ندر مخافة لدى الله مكتوب Dewa man wala kharrwa, wujuli daturran ilaha irian sana, walami yang muni mani yang sidul, باق لم يسل خير عافس همتني كما تحمل لسي قلب يحوى ولودي في سن العفيس الذي له بلا سركة كلي كفى من هوى سهوى وعيت من تسلم الخلب من خدا يروم الهدى بلا سمى العفو والسفوى وعيت من تسلم ليول قلب من خدا يروم الهدى بلا سمى العفو والصفوة آمين يا رب العالمين barkeb sëñ Tuuba tabarkallah alhamdulilah macha allah eh, am na solo lool loolu moom ñu ngi koy ubbee jataay bi ngir bégale ko soppe yeeg taalibe murid yi fu ñu mën a nekk rek mu ngoog kon ginnaaw euh, xasida yooyu nga xam ne seriñ bi ubbee na ko sëñ Xaadim dañuy daal di tàmbali rek bi euh, ngir wax ci ay jaar ndax loolu lu am solo la ndax dana tax nit ñi seetaan xam ne euh, nit ki kat xëyul xëy rek daal di yegg si fii waaye dafa am fu mu jaar fu mu peeg surtout ci wàllum njàng ci ci wàllum mbokk ci wàllum njàng ak ba nga xam ne yegg si nga ba ci war a door xasida yi foofu lañ bëgg nga tàmbalee ko sëriñ Xaadim bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Ahmadou xam naa loolu moom lu gatt lay doon ndax nit mo munta lim bopam di di di wax ci bopam ci lu bari waye mom ñi ngi sant yalla di julli ci ente bi alayhi salam di sant sunu wajur yu bax yi nga xamni ñoo juddu fekk leen ci l'islam fekk leen it ci ngeeneeli lepp l'islam muy cheikhul khadim ñu jur ñu ci l'islam yar nu ci nàmpatal ñu ci ba tey jii fii ñu yegsi ñoo tax ñu yegsi fi waaw fekk leen ci lislaam nga juddu sama baay tuddee ma sëñ bi sëñ Tuuba bi maag samay mag sëñ Cheikh Mbacke am na fi sëñ Mbacke soxna loo am na fi tabaarkàlla Cheikh Adama mi nga xam ne mooy sunu maam am na fi ñu bari am nañ fi ño xamni ni suñu waajur ñoom la leen tudde euh, bi dal joté itam sama bay bolé mak samay mak ak samay rak yóbbu njaareem ci sëñ Moustapha gay mi nga xamni ni euh, ni mako waxé sunu la sunu kilifa la ci kër sëñ Mor mbay Cissé moñu dalal alcorane ñu ne fa jang fa njàng ba fa njëkk wàcce euh, dog faa jóge ñëw fii tuuba ma ñëwee Touba sans bàyyi jëlaat ma itam yóbbu ma ci sëñ Basiiru Loo Caara def naa fa ab diir dogg yeggale ci si Baye Sahid Fall mi nekkoon fii ci kër Serigne Chouaib bi ci wetam fa laa yeggale sama njàng ci alxuraan lépp bam mat ginnaaw bi dem naa sax ba yor daara ja daan fa jàngale ndax booba xale yi fa nekkoon bokk naa ci ñi fa mag ginnaaw bi itam ma tàmbali njàngum alxuraan tàmbali naa ko fii ci jumaa ji ci majaalis bi ab diir ba jàng ci ay téere yu xaw a takku waaye ci njaarim nag laa tàmbalee woon njàngum xaside mi ndax booba daara ju nekk dafa amoon kuréel kër sëñ Mor kuréelam kër sëñ Moustapha Guèye kër sëñ Malick Dieng kër sëñ Souley gay noonu kër sëñ ma dem daara yëpp dafa amoon ay kuréel yoo xam ne dongo yi guddi ajuma gu nekk dañuy taxaw nii dongo yi sëñ Saliou yi daan def mawlu daanaka ba 10 heures 11 ñu daal di ñaan ma bokkoon nag ci dongo yi xam ni dañ daan dañ daan dëbbe ci mawlul bi su daan jàng sama jukki alxuraan sax xanaa damay mel ni kuy kuy kuy kuy yëkkati jàng day gaaw mokk lool ci man mujj daanaka <laughs> daara jëpp di ma ci toppandoo. waaw ma topp liñ naan gone lu mu lu mu dooree rek. Mhm. màggee ko ma topp loolu topp ko. bi ma ñëwee tuuba loolu la wéy di ko def di wéy di ko def ba tàmbali nag di jàng njàngum rajas. muy tàmbali njàngum rajas maa ngi ko tàmbalee ci roy sëñ Ndongo Thiam. am na band bu siiw bu mu fi defoon 84. ci euh, ci jumaa ji. moom laa njëkk a roy di roy xasida graaya ci moom ak mawaahibu di ko yëkkati yëkkati naa ko lu mat ñeent bu juróomi at euh, tàmbali nag bëgg dugg ci njàngum aw ma dugg ci ma dugg ci am njàngam di ko roy di ko roy di ko roy ba euh, boo fàttaliku 1989 wa wilaya mos nañ fi organiser 24 décembre bo xamni ni sëñ Ablaye Seck moo ko jàng bis bobu la ñëk gi gis sëñ Ablaye Seck mm-hmm. mu jang ci fi njàng mu neex ma lol at moma sëñ Bolle Mbay mo tambali man mi it ma jang fa sëñ Ablaye sek yagalé té la tambali nak di top am jangam di ko roy mom sëñ Ablaye sek diko roy diko bolé booleeg njàngum ba ñang wa diko roy ba ba ba gën ci sori ba nga xamné bi sëñ bi di dem Dakar té jëlon terrain bi ñuy dem Dakar ci wilaya bo bi ma eggee waaw njàngum Baay Ablaay Ñang la fa jang wa kon nak lool moy jaaru kay ba ni ma ñëkke génn sama génn gu ñëk and ak sëñ bi dem France momit bima bi njàngum ba Ablaye Niang laa fa jàng ndax booba jamono yooyu loolu laa gën a maîtriser ci njàngum sëñ laay Seck loolu daal mooy tàmbali dugg gi ci xaside yi ak dalul alxuraan bi euh, sante ko yàlla nag ndax suñuy maam yi nga xam ni fi lañ bokk euh, dañoo teel a dimbali ci sëñ bi ndax ñoom démb rek lañ doon célébrer bis bi nga xam ne ci la Cheikh Adama njëkk a jébbulu ci la ci woon ci sëñ Touba muy fukki fan ak juróom-ñaar ci koor gi démb lañ ko doon fàttaliku waaw te foofa ñoom dara jiituwul sëñ bi waaye jiitu ñuy ñëw ci sëñ bi alxuraan jàngale alxuraan jàng ko ne ci yoonu lislaam akum jub rek ci lañ ci lañ cosaanoo bi sëñ bi ñëwee itam dimbalil ko boppam mu teel a xam sëñ bi teel a gis sëñ bi teel xam li ko yàlla defal mu jox ko boppam naa sëñ bi daana wax ne sama mbir li si naa ko ci Adama Gueye ndax euh, Adama moo jëkk ci moo jëkk ci ci lislaam te Adama Gueye jëkk ci man waaw kon nag euh, foofu ku ko bokk rek teg sa tànk ci ci ak taalibe euh, loo góorgóorlu rek suñu borom dana la dana la dimbali waaw loolu mooy jaarukaay yi fi daal ñu jot aksi agsi ci tàmbali nga xam ne nag ginnaaw bi ma àndeek sëñ bi nag génn fekk na nag daanaa dem ci moom di yëkkati xaside yi waaw fii ci tuubaak bu nekkee Taïf ba bis ci coobareem moo mas waa yow ndax mas nga génn ma ne ko déedéet mu ne ma am nga carte d'identité ma ne ko déedéet yow kon foroot nga di man may togn waaw daldi fekk boba xamna bëgg na rek mhm. ma ma dem li ñaan bu la san bëgg may dalay dalay wutal aw yoon ba may la waaw daldi daldi wo señ basir lo ali aram mhm. yàlla ko yalla doli ngërëm niko bis bobu ñuy def France dañ war ko def kan mo koy jang mu ne ko diiw mo koy jang mu ne ko lutax diiw mhm. mu ne ko ah dañuy moo xew ci moo xew daal waaw mu ne ko xanaa ci yéen la xew waaw maa ngi toog mu ne ko dama bëggoon xaadim mi ñu toppatal ko ay kayitam su may ñëw àndaale ko mu jàng-jàng mu ne ko waaw Mbàkke noo ko bëggee rek mu daal di may yebal ca suba sa ma dem Dakar ci góor gu ñuy wax alaaji ma silla silla booba moo moo nekkal Dakar ci wàllu administration beeg yooyu daal di dem Dakar ñu daal di may topp topp sama carte d'identité mu génn ma dem bureau passeport déposé mu génn mu boole carte d'identité bi ak passeport bi yëpp jox sëñ bi waaw sëñ bi toogaat ba mu yàgg xam naa mu xeeb loolu daal may lijjantil passeport de service waaw nga xam ne bis boobu moom laa voyagé waaw loolu mooy sama génn bu njëkk 92 ànd ak moom dem France jàng ji bis boobu xasida daa daaj wi daajin yu suñu Aliou Fall wi ma ubbee keroog bi muy ñëw ci saal bi moom laa ko gàttandoo ànd ak moom ba mu toog may taxaw ci ginnaawam di jàng ba nit ñi nuyoo ba noppi ma doog dem nag toog doog a annoncé ni kii taxaw ci ginnaaw doon jàng ci ginnaaw sëñ bi moo ànd ak sëñ bi moo jógee senegal mooy mooy mooy jàng-jàng yi waaye loolu daal def na leen kiimtaan koo xam ni oh. xam naa ne njëkk xalaat mooy gone gu ndaw gi <laughs> ak kii nim nim ni yooyu sëñ bi jëlee ko Sénégal daal mu war a jàng jàng yi. loolu bokk na ci li nit ñi ngir ñu dañ kumpa lool rek. xam kii lu war a wax. waaw kii bu faaw <laughs> mu bokk. noonu la demee waaw. Eh, sëñ Khadim am na solo lool lool lool wax dëgg yàlla eh, li ñu waxoon léegi rek njëkk eh, moo nekkoon laaj bi ci topp muy diggam ak sëñ Mbacke soxna Lo waaye sëñ Khadim ñëw na ci waaye gis nga koo xam ne. mi ngi bokk ci njabootuk sëriñ bi ci eh, njabootu sëriñ Adama Gueye wax na ko kon kook ci njabootuk sëriñ bi lañ bokk kon bu yëngoo ci lu mel ni day mel ni loolu wolof naan lu judd ci mu tàgg bu naawul jaaxali bokkam eh, waaye kon sëriñ Xaadim nag wax nga ci njàng mi ak ni nga xam ne noonu ko ci dooree ba egg si foofu fi mu ne ñu gis ne njàngu mag ñi tudd nga fi ay mag ñu mel ne eh, sa Ablaye Niang ak ñeneen ñi mel ne moom mel na ndaw ni daw nañ soobu ci lool muy lu am solo lool waye bu fekke da nga ko doon jangat demb njàngu mag ni ak tay ni ko ndaw ni di defé eh, ban ki nga jangat nga ci am bo xamni mom nga ci defal. wa xam nga moy li ma la wax legi kep ku jog jëm fi barab mu ro ñak baña jaar ci aw yoon ku bëgg dem rek te bëgg fa nga jëm nga ag fa nga jaar ci yoon wa mm-hmm. ay ku neewul ci yoon wi mu ne su laa dab ba li la yóbbaale mm-hmm. kon aw yoon mënta ñàkk mm-hmm. koo gis mu dem rek mm-hmm. jaar na ciw yoon yoon woowu moo ko yóbbu ci ab dëkk ngir mu ngir mu yegg kon mag ñi nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñu jiitu ci liggéeyub xaside yi te defee ko defin wu rafet jàngeen njàngin wu am solo wu tege ci yoon mboolem ñi nga fi gis ci gone yi ñuy jàng ku ci ne ba ngay doog a jóg am nga koo bëgg. Mm-hmm. mu nekk sa xol nga di ko roy. di ko roy mm-hmm. ci aw njàngin ci aw doxalin. Mm-hmm. da ngay dem sax ba bëgg koo nuru jëmm. ngir cofeel gi nga am ci moom. kon képp koo gis mu jóg rek. maanaa jóg dem rek amoo kenn koo sopp ci li ngay def loolu amul. yonent bi alayhi salaam mooy jëwriñu sëñ Touba. di sëñ bi jógee dañu ko dann. ba am li mu am ci moom. ba tey jii ku tudd yonent bi tudd sëñ kon aw yoon mënta ñàkk ci képp ku bëgg a dox euh, njàngum mag ñi nag dafa ubbi buntum njàng bi maanaam bu fekkoon ni dañuy wut luñ tegtaloo wala fu ñuy teg suñu tànk wala fu ñuy jaar njàngum mag ñi daa ubbi bunt bi bi mu ko ubbee ba pare yaatal ko bi mu ko yaatalee ba noppi maanaa yombal ko nga xam ne ku jóg mën a am foo foo jëm loolu maye na njàng mi tasaaroo may na njàng mi ni mag ñi toloon njàng mi tolaat na ne ci ay gone wala sax lu ko ëpp parce que léegi li ëpp ci ñuy jàng ay gone lañ li ci ëpp muy kuréel yi di njàng mi ñuy jàng di njàng mu ñuy aw di njàngum rajas waaye bareetul léegi ci image yi ngay gis njàng mu mag di jàng léegi mm-hmm. mag mu am juróom-ñaar fukk juróom benn fukk bareetul li ëpp léegi ci ñuy jàng ci ci réew mi nga di leen dégg ay ndaw lañ loolu nag mm, yombal na képp ku bëgg a roy am nga loo roy ci njàng mu baax ci boo gëstoo ci jikko yu baax li ma doon wax léegi ci boo gëstoo ci teg sa tànk fu baax ak fu fu xasida yi itam képp koo xam ni yaa ngi ci di ci yëngu ni ma koy waxee toujours rek loo baax doyut loo yiwu doyut loo loo loo loo jub doyut loo teg sa tànk fu baax doyul ndax lool la àndal xasida yi ak mbaax rek la àndal rawatina loo xam ni borom mi ko def kon ni ñu koy waxee fóot folowul déedéet euh, mm-hmm. fi ko teg mm-hmm. ba muy liggéey léggéeyam bi mm-hmm. kenn ko ko ci jàppale néew fa kuko cey dimbalé dimbalee la sëñ Abdul Ahad waxoon ba muy ñaan kuko ku ne ci wétam di wax amin sax néew fi waaw seigne bi nak mag ñi daanañ wax ni fu mag nekul ay waxama ko fa nekk mhm. kon khasside yi waxi seigne bi mhm. te seigne bi mag la kon ku yor yefi mag mhm. doon mag ci ata ah, ko doon mag am fo wara jeex ci yow kon lolu moy moy diggante ñangum mag ñi ak njàng mii nga xam ni léegi ndaw ngi koy def giñ ci am daal ñoom ndaw ñi mooy dañoo ñëw fekk mag ñu ubbil leen lépp dëgg waaw ubbil leen bu ab néeg dañ leen ubbil bunt bi tegal leen fi lal boo xam ne bu ñëwee toog ci bu fa ventilateur amee ñu taalal leen ko ba nga xam ne ñëw ñoom euh, ñëw dugg toog rek moo leen ci war mooy ubbil nañ leen bunt yi wan leen buñ bëggee jàng yoon wi ñuy jaar ba jàng lu yomb la te ñoom mën naa am la leen inspiration ba leen inspiré ñu daaj seen daaj yu neex yi sëñ Tuubaa leen ko defal waaye nun dañoo ñëw fekk nu ñu defal ñu lépp waaw lépp ñu ubbil ñu bunt yi wan nu yoon wi wan ñu niñ koy defee nga xam ni ku góor góor lu néew néew rek mm-hmm. sa saw doxin day yomb te di nga di nga am di am repère boo mën a teg sa tànk mm-hmm. ba mën a dox mm-hmm. loolu moo mooy facilité bi nga xam ne moom la ñu mag ñi defal ci liggéey bi léegi nag leneen li ci des lépp ak ak ak góorgóorlu lay doon ak ko njàmbaar goo xam ni ku góor góorlu rek lu néew néew rek yàlla dimbali la ndax fekk nga ñu ubbil la bunt yi ba pare euh, lu mel noon nag ko am euh, nga xam ne góorlu rek moo ca des waaw war ngaa mën a gën a nag fas jom góorlu ci liggéey bi comme ni ma koy waxee toujours ba képp kuy lim ña ko ña ko rafetal mm-hmm. boole la ci. parce que tey jii. bu ñuy lim jàngkat yu mag yi ci yi ci yoon wi. tudd Baye Cheikh Fall Xataab. waaw wallaahi. kon bu fekkee da ngaa bokk ci ñu koy def. dangay rafetal def gi ba kuy kuy lim ña ko rafetal boole la ci. waaye loo xam ne tàmbali woo ko te doo ko mujjee. da ngaa bokk rek ci ñi koy def. képp ku ñaar ci diggante boobu. da nga ko rafetal ba kuy lim ña ko rafetal rek boole la ci. rafetal gi nag ci lépp la aju ci parce que njàng mi ay gone wax naa la léegi ay gone rek koy def rek koy def te phénomène bi ñu koy defee mm-hmm. ku nekk léegi façon bi mu koy defee mm-hmm. ay jamono ci ginnaaw mm-hmm. dañu naa fi génn kilifa ñuy waxtaan mu ne ma ah ñun jànkat yi léegi jànkatam da ngeen di fore ma ne ma ne ma ko gees ne ko koo ci mere mu ne ma diw ma ne ko nga far a ci ñëpp. mu ne waaw ah, waaw ma ne ko waaye ñëpp yemuñu mu ne ah, wax nga dëgg. wax nga wallaahi gore wax nga dëgg de. mu ne tekk mu yàgg mu ne ah, wax nga dëgg de. wallaahi. ko xam naa ne dangaa mere mere a àtte ci ñëpp. ma waaw dëgg de ndax man de hmm. gis naa koo xam ni ak nam doon def. Hmm. jaroon naa bañ a doon ko loolu rek la jàpp. loolu nag dal nañu bari. Hmm, dal nañu bari ñoo xam mere nañ kenn. wala ñenn. Mhm. àtte ci ñëpp. dëgg la ñëpp yemuñu. Mhm. waaw am na ñoo xam ne buñ mënta jox xaside yi dëgg dëgg gëddëgam am. Mhm. la ca tolloog seen kem kàttan jox nañ ko xaside yi ci ci gëddaam ci wormaal ko ci teg ko fiñ ko fiñ jàpp ne fi lañ ko war a teg. léegi nag phénomène boobu xew nga xam ni léegi nu nekk lañ koy jànge fu ne lañ koy jànge fu ne ku ne lañ koy jàngal loolu bul defe ni naqariwul ñi ne ci biir xaside yi parce que gàkk-gàkk la boo xam ne dafa mel ni delluwul ginnaaw kanam lay jëm te li may wax toujours rek bu fekkoon ni boo amee lu la metti ci ci kenn xam kuy kilifaam nga mën faa dem ba loola dakk mm. ma waaw waaye da nga dul xamul kii di def lii ku ko yilif ah, ci lii mu nekk doo mën a jubali ci ku ko yilif te amaa boo ko doon woo ngir labiré ko mm-hmm. du ñëw waaw boo ko labiré ba noppi la nga wax ak moom ci biir nekk boo génnee ci neneen nga ko yéegaate ci beneen façon mm-hmm. yooyu nag metti nañu bari man mii chaque jour bu ma toogeek ñoom ñi ma jàpp ne war na maa mën a wax ak ñoom ci liggéey bi. Mhm. dinaay waxee ñoom ci façon bi ma jàpp ne su ma waxee ñoom ñu déglu ma. ko déglu waaye ginnaaw bu loola jàllee it lu laa ciy dégg. ci ay gàkk-gàkk. di ma di di lu na ma waxeek ak ñoom. Mhm. wala waruma wax. ci na ma waxee ak ñoom fekk na man laa biire ren rek laa ci jublu ndax man moom sama étiquette. mënut a rëy rëy ba génn jànkatu xasida. mënut a rëy. Mhm. ba romb leen. Ah, léegi nag li ñu bokk. li si ñëpp daan wax rek li ñu bokk moom dañ koy waxtaanee. soo ko dee waxtaanee nag na nga jàppee ni buñ boo ni ko waxee ñëpp dégg la nga waxee ko noonu ku nekk ak lam lay wax. Hmm. day sànni taraak yu ne ci ginnaaw. du bari ci ci waroo wax lii hmm. ñam arrangé wul rek nag. Hmm. waaye ñamu arrangé moom. xëy na sax ginnaaw bi danañ la gisaat mbaa ñu woo la téléphone di la wax ni. lii ngay wax nii. mi ñuy dimbali mi nga tax ñu gën a xam fan la ñuy teg suñu tànk. Mm-hmm. parce que kenn ku ku wees. Mm-hmm. ñu di la dimbali ci xalaat di la dimbali ci deel def nii bàyyi lii amul. suñ mënu saad mu mm-hmm. baax ma daana wax ni suma juumee penc mépp juum. ndax seetoon nañu ko doy. niñ koy waxee ñu am ñu dañu ko réer amub reer. waaw di waxtaan ak moom di diisoo moom ci lépp. tam doonoon borom xel mu rafet moo xam ne lu ñu ko wax loola lu ca lu ca dëpp xel mu rafet ma dana ko def kon loolu kuy dox ci mbooloo mënoo ñàkk loolu waaye léegi nag mm, liggéey bii ñu nekk di ci dox daanaka ku ci ne bopp sa bopp la kenn amul ku la ciy digal mbaa ku la ciy tere wala nga bëgg a def jenn jawaab mm-hmm. am koo ciy sóoraale wala nga am ci koo ciy rus ni lii bu ma ko defee bu ko déggee dana ma yedd wala dara kon boo ci amee loolu naqari amul moom jàpp ni mooy kilifaam nga war a wax ak moom ca loola ngir mu dakkal loola metti na nag ñi ci ne bu baax a baax loolu dinaa ko wax ca kaw ñëpp la metti waaye nag euh, pexe amu ci parce que euh, mënal sa bopp nangoo am kilifa ku yàlla dimbali rek moo koy moo koy am te néewaa na nga ne ci xaside yi ba déwén te doo mënal sa bopp. Mm-hmm. boo manalee sa bopp nag nangoo am kilifa. loolu moom ndimbal lay doon. Mm-hmm. waaye li ci ëpp daal ci gone yi. Mm-hmm. dañuy demal seen bopp amuñu kilifa. amuñu kilifa nanguwuñ ku leen digal. loolu mooy li am. dëgg nag wax dëgg yàlla du romb ay nopp. Eh, waaye loolu mooy li am. waaye na ñëpp jàpp nag du lu du lu ñàkk bañ a naqari na mboolem ñi ci ne te ciy dox. naqari na leen. Lola nak xawma lu ci pexe way daal metti na ñep wa lool dal moy ñangum léegi ni phénomène yi nga ci gis mm-hmm. lool kenn du ko wax ni mm-hmm. ku xor rek dajeeg moom ngay gis wa señ mbak soxna lo mu bax ma da na ma wax ni khaside yi mm-hmm. man ko mu ni man ndëndum bur la kenn du ko ba do la señ mbak wax wa ci ni ma ku ko xamul jëru ko jangal ak ku mëna doon ak ku ko mëna barke sëñ Touba xanaa ma xasida yi ndëndum buur la mm-hmm. ne ko waaw mu ne ma kenn du ko tëggal baadoo la ak ku mën ko mën a jur wax juyeetu juyaatu waaw léegi nag ndem xasida yi ndëndum buur la te su ko tëggal baadoo la te gis nga ne xasida yi moom fu ne lañ koy jàng fu ne ne lañ koy jàngal. noonu lañ koy jàngal. noonu lañ koy jàngal. la Euh, mbokk yi ma fàttali leen yéen a ngi euh, déglu ci seen réseau DTL jant bi ci Touba 95 point 2 euh, caneeram ci Dakar 88 point 6 ak leer gi FM ca Louga 94 point 6 waaye ci jant bi TV ndogul jàmbaar yi ñu ànd ak Serigne Khadim Gueye ñuy jàngat ci liggéey bu sell bi nga xam ne moom lañu féeti féetal fi sëriñ bi mu yëkkati ci kàddu yi soññ yu am solo yoo xam ne loolu ñaan naan parole d'expert la Euh, moom la ñu sëriñ Xaadim indil foofu euh, ci ni nga xam ne noonu la jàngee muy dëgg goo xam ne ñun ñëpp mën sa ko laal kon jamono moo toll foofu waaye dana ci ñëw sax ci jukko yu yàq yu mel ni bàyyi andi nañu ci daal ay yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne mën nañ ci jariñu ndax lu mu dund la waaye sëñ Xaadim beneen laaj rek boo xam ne xëy na mën nañ ko euh, waxaat tuuti ndax dafa mel ne ndax mën nañoo boole liggéey bu mel ne jàng ak métier. wala mom rek man nañ fété wo waaw waaw man nañu and bu baax a baax xam nga. légui la rek. légui la rek nga xamni euh jang mom bo ci euh bo ci fanaanee xey wara yendo nelaw. waaye man bay ablay ñang mu baax mi tok nañ munima ma. Mm. ba bi may am jurum ñaar fukki at yu manké mm. maa ci sama métier. Mom entrepreneur maçon la woon ak ku xam maçon ni metti metti ak mom aw njànginam ni méttee ni méttee te nee ma daanaa xey fanaanee jang ñew sol sama teni jël sama welo loolu ma welo dem liggéey setel, kan? Mhm. wax naa la fi ni la mhm. référence mom, moy mhm. magni moy magni kon waxon na fi am atam ni képp koo xam ni ci ndaw ñi yaa ngi ne ci xasida yi te njàngum xasida yi nanguwul sab liggéey nanga ko booleeg di liggéey suñ la soxlaa am njàng nga bàyyi liggéey bi dem jàngi boo ñëwee ba noppalu delluwaat ci liggéey ndax am njàng du bis bu set lañ koy def ñun ñii ci dëkk sax dina am bis yuñ dul jàng waaye bis ya nga ca amakus néew te jàng ko danga naan sii war noppalu ko ba boo jógaatee mën a am kàttan ndax dem na njàng mi dem na di dem ba nangu liggéey bi nga xam ni moom nga amoon mm-hmm. man mi amoon naa métier mm-hmm. daan liggéey mm-hmm. waaye taxul woon ma bàyyi ko dama ko daa booleeg njàng mi bi ma demee ba nga xam ni njàng mi nangu na sama liggéey dama teg fee liggéey bi wéy ci njàng mi parce que programme yi ma am ci at mi mënatuma ko booleek dem di liggéey ci leneen sama yaram àttanu loolu euh, te am na ñoo xam ne ñii ay tailleur lañ ñii ay maçon lañ ñii lee ñii lee lañ ku ci ne liggéey ba dal sa xel ba nga tàmbali woon ko di ko jàng ba xaside yi fekk la ci fekk xaside yi nanguwul liggéey boobu boole koog di ko liggéey ndax liggéey nag da jaamu yàlla la tey liggéey day day dox sa digganteeg lu baree bari benn dina la xañ ak jot mm-hmm. ba doo dem foo wërta dem ñaareel ba dina la may teraanga ju tax doo dem foo wërta dem mm-hmm. dana la sàmm it sàmm gu toll ni tàllal sa loxo kooku wërta tàllal mm-hmm. bu fekkee tàllal loxo mën ñàkk te euh, asgor euh, day moytu lu bari day daw lu bari surtout li ma la wax li jamono jii phénomène bi nga xamni amna am na bëgg dundu wala bëgg tedd té nanguwoo son koko man na nangu lu né man na def lu né ngir ngir dundu rek ngir dundu rek lool nak su ni am na dara occupation yu dox sa ngai mm. ngay defi ji loola loola ab liggéey rek mo la ci mëna dimbali te liggéey bi ku ci ne war a sàmm sa bopp. dëgg la waaw moo tax nag ñi nga xam ni. seenu njàng matewu ko ni man nga xam ni tey buñ jàngee balaa ñoo jàng mu yàggaat. Mm. suñu bëggee toog di xaar ba ba ñuy jàngi doog a danañ dem fu ñu warut dem. Mm. danañ laaj ku ñu war warut a laaj. Mm. danañ danañ jàngi xasida yi fu ñu ko soxlaa ngir bëgg dara. tarkala. Eh, amatina solo lool muy loo xam ne ñu ngi koy jànge bu baax a baax euh, kon daal bu ñu dégloo sëñ Xaadim war nañoo xam ne euh, xaside yi war nañ koo mën a boole ak métier ndax euh, ngir sàmm suñu ngor ni mu ko waxee dafa leer ndax am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañoo teel a seex nag tuuti buñ ci dëggee tuuti rek daal di gaaw teg lépp toog te fekk na dañu yàkkamti loolu sëñ Xaadim ñu ngi ci koor gi yu mel noonu nga xam ne koor gi moom yaakaar naa ni ni nga ko waxee léegi mooy chahru ramadan muy weer wu sell Eh, programme korgi, koor gi ak li nga xamni moko jité yow mom naka lay démé waaw programme yi nak mom xam nga li ci ëpp bisu mag yi. mel ay màggalu Sanosi. xam ni dafa deppok ay magal, ñu war diko ñu war diko diko taxawé euh waye nak nag daanaka weeru la rek. Ah, ndax ñi jangulu muy daayira yi jangulu ak yene dekk yi. ñaara bu koor ñe mom dañuy tegg lepp ci suuf ba koor gi jall lol dina la dimbalé nga ma nga mëna am ay fan yoo dul yoo dul hmm. jàng dina la may tam nga profito mëna tok ci sa njabot mëna mëna mëna wétt li kon ci ak ñom euh man nak danaka wér la woo xamni mom danaka mënu mun wax ni dina ci noppalu ndax waaw gis nga ko barki demb lañ jamon gambi hmm. am nañ fa juroomi fan euh yo xamni bisu sa dañuy jang Ah, nga xam ne tournée la woon ci biir Gambie ci ay régions yu bokkul mm-hmm. ay Banjul Serekunda mm-hmm. dëkk yu ñu wax ay yundum yooyu yëpp ay ay ay ay ay dëkk la yu yu wuute mm-hmm. yoo xam ni ku ci ne dafay am bisam bu mag bu mu ñu di ko amal ci biir koor gi saa buñ ciy dem nag lañ ciy demee demeen wu mag woo xam ni mbooloo mu bari lañ fay yóbbu fekk leen ñoom itam wax dëgg yàlla ñu teeroon teeru bu yaatu euh, ba biig ci guddi waxtu wi yaakaar naa fekkagul ñu agsi mm-hmm. loolu mooy suñuy yëngu ci biir koor gi dina amit ay palaato yoo xam ni mm-hmm. euh, yenn yenn tele yi ci mm-hmm. biir Sénégal dinañ ñuy woo ñu fay amal ay bis ak i plateau ndax itam koor gi day gën a yaatu ci jàngkat yi weer wi itam maye daanaka ñu baree bari dañuy dañuy mën a di di teewlu loolu ba ba fajar wala ba xëdd jot yooyu itam dinañu dimbali ñu mën a dem ci barab yu mel noonu niki barab bi bii ñu toogee. Mm-hmm. mën a bégal mbokki taalibe yi. mën a waxtaan ak ñoom mën a wétalikonte ak ñoom ba guddi gi sori. Mm-hmm. yooyu nag day am ci télé yëpp. Mm-hmm. ak ci yenn barab yu baree bari. ñu di ko taxawal. tarkalla euh, jërëjëf loolu am na solo muy programme yoo xam ne noonu la war a doxee ci biir kor gi waaye euh, sëñ Xaadim mel na ne ci benn euh, ci doxinu jamono lañ bëgg a dugg léegi ndax mel na ne day ànd ak sax ak li nga xam ne loolu la def muy jamono ji mel na ne ñi ngi jàmbat saa su ne ay jukko yu yàqu ndax léeg-léeg nga dégg loo xam ne ci suñu réew mi. Euh, suñu yeewoon yenn maam ñi nga xam ne ñaar fukki ci ginnaaw lañu dëdd woon euh, bu leen andiwaatoon ci réew mi dañ naan du réew mi lañ fi bàyyi woon ci ay ci ay ñaawteef ci ay wor euh, ci baatu dóor ci wax naka su dul noonu ci jukko yoo xam ne daal kenn xamatul kan la fekk ci coloré ñàkk coloré nga xam ne ñii ñàkk dañ ko ak yu mel noonu surtout ci réew mi nga xam ne li ci ëpp téeméer boo jël juróom juróom-ñeent fukki bi ak juróom-ñaar ay jullit lañu. waaw hmm. hmm. ah, xam nga jamono. jamono moo yàqu de jamono ci boppam moo moo yàqu nit ñi itam euh, nit ñi itam ñu ci bari li léegi rek kilifa yombatul daal am kilifa moo yombatul suñ bay jaxate waxoon na ko ku wéeruwul rek yomb ba max waaw te baat ya ko jiitu mooy am kilifaay li am solo soo ko amee rek am nga solo mm-hmm. waaw te ku am kilifa mm-hmm. di nga am loo ragal a def wala loo jomba def léegi nag hmm. am kilifa moo jafe hmm. nga xanaa ne di nga bariwaa na lu lay naqari ci nit doo xam kuy kilifaam ba nga mën ko wax moom ma ko def sax bu xalaatoon kilifaam du ko def ba nga koy ba dem ci kilifaam hmm. euh, muy doon jamono joo xam ni koo gis muy dem rek daanaka bopp sa bopp la nag kuy dem ak boppam rek la ko soob rek lay def léegi phénomène yi ngay gis nu nekk nga koy gisee Sénégal boo fi masaan dégg ñu nit faatu na te kenn xamul ku ko rey jàmm jeex na fi. barab ba mu amee. mën naa toog at nit du fa jaar ngir ragal gum ragal léegi nag faatu moom comme ginaar yi ñuy rey ak xar mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Hmm? ak mbon moom léegi nu nekk lañ koy fësale ci anam bu ne loo buggut a teg sa bët loo bëgg gis ci mbon ci anam bu ne lañ koy fësale bu ne doo yëg ni sax réew mii nga nekk réewum jullit la. doo ko yëg da ngay jàpp ni rek eh, ku raw ku ne yaa suñ borom a la dimbali sàmmal la sa bopp. waaye kenn amatul repéru fooy teg sa tànk. walla fan laa jëm. lu nekk ngay gis. lu ne ngay dégg li ngay dégg da ngay dem ba jàpp ni sax ndax àdduna suba lay tukki. ndax tasaaroo gu jamono tasaaroo nit ñi tasaaroo gu tasaaroo mbon gu tasaaroo ci dëkk bi tasaaroo ci réew mi tasaaroo fepp léegi nag li am solo rek mooy boo gisee euh, nit ñu di ko yar. Mm-hmm. lu mel nii rek a tax. Mm-hmm. sëñ bi daawul laaj kenn ku la jur ko la yar rek la daan laaj. Mm-hmm. nañu dellu siwaat ci xool ci kilifa yu baax yi nu yàlla boole. fi ñu teg seen tànk nu jëm faa teg sunu tànk. ci wut lu baax. ci jéem cee sonn lu baax dañ ciy sonn. sëñ saa daana wax ni lu baax. tàmbali ko yomb na waaye sax ci moo jafe sax ci lu baax te léegi euh, euh, ku dawut ci li nga jot a am ci lu baax daw nëbbi ko wala nga làq ko rek am loolu la naqari mm-hmm. ko ci ne léegi nu mu rawalee boppam rek lay wër mm-hmm. ndax jamono ji fii mu toll nii mm-hmm. euh, ak jamono ju njëkk ji dafa wuute lool lool lool lool ci xarala yu bees yi ci lii am ak mbon day day day ñëw ba fekk sa njaboot ci biir kër gi ñëw fekk leen ba ci biir néeg yi fekk leen ba ci seeni téléphone def ci ñoom ak mbon foofu la technologie bi toll dañ dañuy toog dañuy ne fañ ne di la defal ak mbon ba dugal di ko woomat ca mbedd ma ba dugal ko ci sa biir kër doo ko yëg di ko woomat ba dugal ko ci sa biir yi néeg dugal ko ci seen njaboot jaarale ko ci seeni téléphone ñu xëy bon te doo xam ñii lu leen bonal fu mu bàyyi ko kon jamono moom yàqu na ba noppi. waaye nag kilifa ga waxoon rek ba ñu sëñ bi yar tey tax. waaw ah, kon yaru ak ñu ak ku yaru yar la. Mm-hmm. lu am solo la. ndax képp ku xës ba yaru. Mm-hmm. Ah, suñ borom rek moo lay kàttanal moo lay dooleel. Mm-hmm. ba ba ba musal la ci lépp lu bari. Eh, liñ naan liñ naan xawma naan du të day raw. Mhm. jigéen du të raw waaye loolu ñëpp ko moom. Mhm. doomu aadama du të raw. waaw kon nag loolu mooy mooy fii jamono toll. Mhm. ci yàqoom ci yàqute gone yi. ci lépp. Euh, li mat a rek mooy fexe ba sàmm njaboot gi. moo tax ab yar moom lu ama ama am solo la. sëñ bi daawul laaj kenn ku la jur ku yar rek la daal wax waaw. tarkalla eh, jërëjëf sëñ Xaadim am nañ mbégte bu baax a baax eh, mbégte mu yaatoo yaatu ni ñu ko waxee rek waxtu bi moo ñu dab hmm. am naa ni may def rek mooy joxaat gi sëñ Xaadim rek mu yëkkati yu mujj bu hmm. dee eh, ay abiyaat lay doon hmm. tarkalla dina baax bu dee ay kàddu lay tarkalla sëñ Xaadim waaw maa ngi sant sëñ ma bu baax di di am mbégte ci jataay bi ndax jataay bi jàpp naa ni bu dee liñ ci war a waxtaane daanaka dañuy doog rek tàmbali waxtaan wi Euh, ndax njariñ lu am solo lim am solo euh, boo gisee jamono fii mu toll ak euh, ni muy doxee nga war a xam ni lu baree bare jot na ngir ñu di ko waxtaane xëy na sax man moom du ma du ma ci wàllu googu waaye wet gi ma féete moom nga xam ni sañ naa cee wax waaw moom lu ma yitteel la ci ñu ñu ñu ñu ñu fonkaat ko bu baax ñu joxaat ko gëdd wax naa ba tàyyi xale yi ni leen Euh, nit lépp lu koy teral lu ne di ko may aafiyam ak jàmmam mm-hmm. bu dee nit a war na ko fonk mm-hmm. xasida yi nag bu dee am na aw sant mm-hmm. fonk rek moo diw santam moo ko fonk doyul kon nañ gën a fonkaat xasida yi bu baax gën koo jox këdd gën koo jox euh, worma gën koo gën koo gën koo tatagal gën koo teg ca kaw di sant bu baax sëriñ Cheikh aliyun mbake ni mhm. nga xam ne borom bi ni mhm. ma ko waxoon ci bi yàlla sam ko te aar ko waaw du ma bàyyi te santuma sëñ Mouhamed Mbacké ndax mom lépp mom la mhm. waaw jëmm la jo xam ci man euh, mënuma koo fay maa del di ko ñaanal ngërëmi yàlla sun borom dolli ko leer te yegal ko ci mamam yu bax ya di ñaanal taawam bi fi ne sëñ Moustapha Muhammad sun borom guddal fanam te wéral ko moo ki njabooti sëñ bi yëpp ci góor ak jigéen yàlla sàmm leen te aar leen eggale seeni mébét ak seeni yéene maa ngi jaarale ci yow di nuyu waa rajo bi yëpp waa jant bi ak waa télévision bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla sàmm leen te eggale seeni mébét yëpp ak seeni yéene xanaa ma def bayit yu mujj rek waaw pour tëjee ko maa ngi sant ñëpp di baalo ak ñëpp àq di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi tey ñaan baal ñu àq di di ci ñëpp ñaan itam ci barkeb sëñ Touba Cheikh Moustapha Sam sulu fi samaanihi wala adna al min nuuri Moustapha Cheikh Moustapha yi samsul huda fi zamanihi wala adna al afaqu min nuri Moustapha kila am xam-xam te am diine fonk ngor ragal yàlla tey jàmbaar judul daw fa Mustafa kilay Mbàkke wa ko lu geng ndaam di kër ndeyam ña doon kaa koley raam fa Mustafa kula boo dex gaa ngi fe tu daay sëriñ bee di bahrul juudi nuur leen fa Mustafa wala siwil baharaani hasbun sarabo wa milun ujaajun bul nit ci Mustafa wala siwi laxma kalaamu ilaayina fa anta basirun yow Cheikh Amdi Moustapha su Moustapha doon pëlitam di ardo ngir yaari wàllam yépp am nay fardu su Moustapha doon law bi digg maalaw bu doon ci buur di fari déggaw law su Moustapha weexoon naa ko gouverneur su doon ubar ya dégg antal poronoor su Mustafa doon jaan ñu naa ko saamaan su doon weer di weeru koor mbaa sax baan su doon arab wa diw ñey mbaa ngaaka mbaa njamal ñëpp naa cey su Mustafa doon jàkka faf di Makka mbaa muy madinatu mi gën ci sumu sawa doon xeeti mursalina mana ko yaadi xayrul lawalina sumu sawa doon foore yaadi ahmadul mbakiyu sumu sawa doon yaadi bahrul muyti yaa ngi war bilaade barkeb Sëñ <laughs> alhamdulilah tubaarkalla. jërëjëf. jërëjëf euh, sëriñ Khadim Guèye kon mbokk yi mu ngoog ñu ngi koy ñaanal daal suñu borom guddal fanam. amiin na ko yàlla wéral. barkeel liggéey bi. amiin barkeel njaboot gi. te lépp li nga xam ne bëgg na koo liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci xaside yi. suñu borom may ko kattan ba mu yeggale ko fa mu ko bëggee a yeggale ci jàmm ci jàmm. ci barkeeb turandoo ba Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul. kontaan nañ bu baax. ndax ni ma ko waxoon ci nit la koo xam ne amul jot waaye wax dëgg yàlla euh, waaye faay bi ak yitte ji ak bëgg gi sëriñ bi hmm. euh, tax na. mu accueillir ñu dalal ñu kër gi ci euh, këram gi fii waaye ci weeru koor gi nga xam ne ci la jot gën a Euh, wax dëgg yàlla sëñ Xaadim recevoir ñu bu baax kon loola yitte la joo xam daañu ko wax ñëpp kon daal ñu ngi koy ñaanalaat bu baax di ko béggee euh, seen émission ndogul jàmbaar yi mi ngi euh, ndogul jàmbaar yi mi ngi noonu ak sëñ Xaadim Gueye xanaa ñu sant bu baax sëriñ Mouhamed Kane moom it ñu ngi ko fekk fii ci jataay bi mu jàpp ci organisation bi bu baax sëriñ Cheikh Ka moom it ñi nga xam ne ñi nga ànd ak sëriñ Xaadim ci liggéey bi di ko ko di ko ci jàppale ñu ngi leen di ziare baax ak mbooleem mbokk yi nga xam ne fekk nañ ni fii ci kër gi Euh, ci caméra caméra yi waaye suñ Malick Ndiaye moom it ci caméra yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare baax di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi di ñaan suñ borom tas lañ ci ak ngërëm sëñ Tuubaa sant leen gërëm leen baax a baax euh, kon boobu moo nekkoon seen numéro euh, ndogul jàmbaar yi ak sëriñ Xaadim géey suñ borom mii borom jàmm yàlla nañu may jàmm ñun ñi nga xam ne duñ doyal jàmm ak wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu SCS di jaay bépp marque ak modèlu téléphone boo soxla sunu cosmétique waa kër Serigne Modou Moustapha ak seen café Touba xewal ak yi waa kër Borom Sam ak Tamaji ñoo leen doon may seen émission ndogul jàmbaar yi